ay maqaam yàllaawo bisimil ilaay ci barkeb say ci faddilu mi buru yàlla doldinoo ay maqaam yàllaawo auzu billahi min asheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad nabilumi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman auzu billah bisimillah inna waliyallah laa xawla wala xawata illa billahi alazim bokk internet yi nga xamante ni yéen a safoo taamu seen télé bi nga xamante ni mooy Amsa TV la télé solution. Mhm. ñi nga amaat mbégte tey beneen yoon dellu siwaat ci seen jotaayu xam-xam bi nga xam ne moom lañ leen saa su ne. Mhm. ñi ñu ciy faral di àndal nag dootuñu présenté ndax Cheikh Moustapha àdduna xam na ko wërngal këpp. Mhm. ku ko xamul itam dégg nga ko ci kàllaama gu neex macha allah kaar waaye tamit ci uqa gi nga xamante ne saa su ne moom lay teg waaye tam ci yombal gi nga xam ne mi ngi koy yombal li nga xamante ni suñu borom jëglal na ko ko tam koy baaxewaat àdduna wërngal këpp rawatina askanu Sénégal. Cheikh Moustapha ñu ngi lay nuyu di la ziar waaye di la dalalaat ci biir jotaay bi naan laan salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. sant yàlla. alhamdulilah. ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sant waajur yi di leen ñaanal fanu nu tëdd di ñaanal waajur yëpp ak képp ku ne ci biir suuf yàlla yërëm leen xare leen aljanna yaatal seeni bàmmeel yokk seeni leer ci darajey yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ñi tëdd ci hôpital yi yal neen yàlla defal wér yàlla na yàlla fëgg seeni cër yaaye na yàlla gën leen kàttanal ci daraje yenent bi di ko ñaanal it ñi caabi féete ginnaaw ndax nit bu nekkee ci ab nattu mm-hmm. feebar nattu la mm-hmm. xat-xat nattu la mm-hmm. te nag mi ngi am ci àdduna la bokk te kenn mucc ci yàlla rekk ay xool ndax léeg-léeg nit yàlla musal la ci ab nattu teg ko sa njaboot baa teg ko sa mbokk baa teg ko sax ku la jege lool ba mu mel ni yow la kon yàlla nañ ci yàlla musal ba ñi mu dal seen kaw nun ne ci caabi féete leen ginnaaw yal leen yàlla xettali hmm. nu génn ak jàmm ak sutura sunu borom teg ñun ñëpp nag ci àla siraatil mustaqim di nuyuwaat hmm. sunu mbokki bopp yi ñi nuy teewloo fu ne hmm. di nu yëre fu ne di yéenee fu nekkit waaye it dinu nu yége it fu ne waaw di jël seeni doole seeni xàq ci lépp ci seenum ñaq nag ndax nit ki lu mu la jox rek àqam la moo ko moom mu jël léppam am yéene ji ndax ki toog rek jàngal la gennuk ñaan rek amoo ak xayam dinu teewlu ci internet yi fu ne mm-hmm. dinoo bàyyi xel fu ne mm-hmm. euh, te la ñuy def seenu alal la ñuy jël ngir man am moyen man ko def hmm. kon yéene weesuwul foofu yàlla na leen yàlla defal jàmm ñani seetaan wér hmm. ak ñani seetaan wérut hmm. ñanu seetaan toog benn palaas ak ña nga xam ni sax jamono jan koy def am nanu metit gu soo xaale wala ay nelaw leen waaye nii gis seen bopp ci loolu yàlla na yàlla barke lépp defal leen wér euh, musal nu nag ci jàngoro yi yaram ak mm-hmm. jàngoroy poos mm-hmm. ci darajey rasulillahi sallallahu alayhi wasallam Cheikh Taar di wax salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah macha allah Cheikh Moustapha ci nuyoo bu am solo boobu waaye ci ñaan yi xanaa ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom mi am sañ man tey def mm-hmm. mu daal ñuy nangul te dégg sa kàllaama gi macha allah rabbi ci darajey yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam mbégte la ñu amaat gannaaw bi ñu dellu siwaatee tey santaat yàlla bu baax ni nga ko waxee bi ñu mayee ñu fekkee waat gannaaw bii weesu ñu fekkee waat tey ñaan fekkee waat yeneen ak yeneen ak yeneen waaye bëggoon rek xanaa tàmbalee tey jotaay bi mm-hmm. ci ndokkeel la mm-hmm. waaye ndokkeel umma islamiya adduna mm-hmm. wërngal këpp ci suuru ramadaan weeru sell wu tedd wu mag wi nga xamante ni maanaam teru na ndax amaana sax tey jii bëriwaa na ñoo xam ne ci réew mi um nanu àndandoog uh, madinatul munawara waaye xam naa li ci ëpp ci réew mi itam insha allahu rabbi fas nañ koo yéene tàmbali suba lan nga ñu mën a wax ci weeru koor gannaaw boo ndokkeelee nit ñi siyaar leen ci weer bi lan nga mën a indi tey ci weeru koor macha weeru koor seex lu ci waay wax rekk tuuti na weeru koor rëy na bi yàlla ne man maa koy fayal sama bopp <laughs> weeru koor rëy na ci nit ki xam luy weeru koor mm-hmm. weeru koor rëy na ci fekke weeru koor waaye weeru koor rëy na mhm. ci jaamu yàlla ci weeru koor lan mooy jaamu yàlla nag ci weeru koor mhm. fexe ba koo tooñoon nga baalu ko àq fexe ba mhm. di dundal jaami yàlla yi ci si seen xiif gi ci si seen mar gi ak ci si seen ñàkk sutura gi sax koo fekkoon sax weeru koor jot nga fekk ko mu daan sangu foo xam ni zeng rek la fay teg nga ni ci barke koor gi naa ko ko defal ñaari néeg yi ñaari duus yu muy suturloo baa benn sax jaamu nga yàlla ci ormay koor jaamu nga yàlla ci tedd nga gi mhm. waaye yaa ngi delloo yàlla ba yàlla ne lu ne mën naa yóbbante wala yónnee ku koy fay baa ma dénk ko ku koy fay waaye koor man man yàlla maa koy fayal sama bopp <laughs> kon loolu rëy na kon loolu riche na mhm. yow mi ko fekke rek mhm. xamal li nga fekke lan la ba man ko sant yàlla waxatuma nag lamu la ca beral na nag muy jéggal ci ñi ni ñaan jéggal di leen ñaanal jéggal te ñoom bu nu sañoon sax ñaan seen bopp jéggal mooy ñi muy goreel ci safara macha naan képp ku faatu ci weeru koor aljanna nga jëm ma ngi naan ñëpp ku faatu ci weeru koor am nga am nga yërmaandeg yàlla gu dul dakk mm-hmm. seetaan waaw ku fekkoon sa mbokk mu ne ci xat-xat ndax ñañaa yàlla di jéggal kan moo mën a waat ni suñuy mbokk bokkuñu ci kan moo ko mën a waat ci àdduna kon rëy na mhm. kon sant nañu yàlla ci fekk gi mhm. yàlla nañu yàlla kartanal ba nu man ko tatal ko mhm. yàlla nañu yàlla kartanal bañ ci xalaat lu rafet man léeg sax ma tooñ gaañi ma ni budul dara sax da ciy gis sax ña nga xam ni julli di woon seeni mbir nu ñoqati borom boo xam ni ba nu ko gëjee lalli kenn xamul nu mu toll <laughs> sama classe walla yàlla xam na ko xam ni bu doon feer la jaay rek xam nga ni feer day manqué tubaarkàlla tubaarkàlla moo tax ma ni promotion julli sax am na waaye weeru koor la tubaarkàlla loolu lépp nag <laughs> la tax nit que am na hmm. ñoo xam ni buñ ko ca xasee tàmbali doot nu ko baax hmm. ñoo xam ni defatuñ ko woon ñoo koy def hmm. waaye ba dootuñu ko baax lii la ñuy ñaan tey ñaan yàlla yàlla nañ ko tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin jaamu yàlla gënu ko màgg ci ca jaamu yàlla yi macha allah Cheikh Moustapha ni nga ko waxee weeru promotion la sama classe gi moom xam naa ne bu ñu këppee seen jéey rek weeru koor a jot macha allah <laughs> ak ñeneen ñi mel ni man ah, waaye yàlla yàlla xeeb dool leen dugg ci weer woo xam ne au moins euh, xel dana dellu si waat sago ñëwaat ba ñu bàyyiwaat xel a këpp suñu jëyi hmm. kon loolee itam wax dëgg yàlla buñ nu ko xeebal ak it di dolliwaat ni woor wóor a gën ba pare woor wóor a gën waaw wóoral ba pare soogay woor lan mooy wóor fa a ah, yow mi woor di tasum kër hmm. yow mi woor loo romb mu dem hmm. yow mi woor xamoo bëccëgu weeru koor ak guddi ga yow mi woor romb sa njaboot war leen jox dépense bàyyi leen fa di ko jox keneen di ko wàcceel saaku suukar ak saaku meew a ah, yow loo woore xaw ma ko de <laughs> ah déedéet woor ak gën yow mi woor pos boo pos boo jekku mu dem <laughs> yow mi woor dàll yu nu sumi ci buntu dàll boo ko jekkoo saase ko te naan samay bët a leeratu ah dana yàgg di lëndëm ah woor wóor ak gën seex taal teg naa ci loolu gaa ñi nee nañu naay def ab bonus bonus baa ngi noonu tubaab kenn yàlla xam ne walaay ndeysaan walaay wala Cheikh Moussa da nga da nga tudd lu doy waar. woor. Mhm. wóor a ko gën. waaw. Mhm. te nga joxe ci ay anecdote wallaay muy misaal yu doy waar yoo joxe. bëri waa na ñoo xam ne dañuy tàggoo seen biir kër yi woor. Mhm. génn ci bi te duñu woor. waaw tàggoo seen kër yi woor romb seenu njaboot. waaw duñu fa joxe lu mat. génn daal di nuyoo yaayu diw ja ca àndal ba. ñaari junni. ne ko sa sukkaru koor. wallaay yàlla xam na ak yoo xam ne mën nañ koo topp di ko lim fii ba bët set dafa bokkoon ci question yi ma naroon indi tey di la wax ne tey lan mooy wareefu jullit bi ci weeru koor mm-hmm. ak lan la jullit bi war a moytu tey ci weeru koor mm-hmm. jullit bi li ko war ci weeru koor lu dul weeru koor sax war na ko waaye dafa gën a warati ci weeru koor ndokk yàlla ndokk mm-hmm. yàlla xam nga màndu moom dafa gën a war ci lu dul weeru koor <laughs> ndax xanaa kenn warul ngir xiif ak mar def li gudul jeex nara inondé réew mi <laughs> ak jaru ko dam say bañ loolu taxul woon yàlla sax di wax mhm. li ëpp solo ci weeru koor mooy su bët yi ku la xool xam ni mhm. yàlla rekk la ci ñor mhm. sa làmmiñ wi xool xam ni yàlla rekk ci ñor soo doxee wane gannaaw sax noo xam ni yàlla rekk la ci ñor xam nga loolu nag nan lay demee ci maandu ko ci rafetal ci def lu baax seetaal nga woor ba ngoon nit di jël dara di ko jox nit nga ni ko jaru ko te nga ni yaa ngi woor <laughs> kon dog nga bu yàgg yëgoo ko ni <laughs> ko dog waaw waaye bu dee dogum koor gi rek jàmm la mhm. est-ce dogoo sax sa diggante ak sa borom ndax nit heure bu xañee nit yiw rek moom ñàkk na yiw moom mi xañaati yiw mhm. <laughs> moo tax comportement corps ah ban restaurant moo ubbi bokku ci <laughs> <laughs> déedéet bokku ci ak yeneen mhm. ak yeneen ak yeneen waaye daal li nu ci war te yàlla digal nun ko mooy mhm. woor leen wóor leen walla wóor leen tawoor mhm. <laughs> wóor leen ba noppi waaw kay tawoor boo wooree nag yu bare bare doo ko xalaat te boo ko defee am nga ensemble koor gu mat sëkk ci ndimbalug yàlla fay gan ak sunu borom a ko yor tubaarkaal gannaaw moo koy fayal boppam moo ko wax wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan mu doon lu am solo ah. bokk na ci itam dañuy wax ni fi mu toll nii dañuy gis ni bu weeru koor jotee rajo yeeg télé yeeg yëpp Mm-hmm. ñëpp daal di daw dëgmalu mm-hmm. waaraatakat yi seen weeru mm-hmm. promotion la ni nga ko waxee léegi promotion la ci ci ñenn ñi waaye ñenn ñoo ñu def ci bokk suñu mbokk ustaas yi ñoom weer yi moom mooy seen weeru promotion ci la ñuy fees ci télé yi ci la ñuy fees ci rajo yi ci la ñuy fees ci réseaux sociaux yi est-ce que yell na tey fi ne ci weeru koor bi rek ñu war ko cee def wala war nañ ko dëkkal saa su ne waa xam nga booy àbba ab yére heure buñ la ko aalee rek moom nga koy mën a sol yaa xam céet goo mën di dem nag. ak ngénte loo mën di dem dégguma la de. <laughs> xam nga ni problème mooy ustaas yi wax ci tele yi ak ci internet beeg lu ne. Mhm. yàlla xam na ni ni bu nu amoon seen tele yi bopp. Mhm. seen rajo yi bopp. Mhm. bis bu ne daanu wax amuñu ko. Hmm. temps bu néew lañ leen di jox. te balaa ni lay jël sax ci télé yeeg ci rajo yi dañuy xool ba xam am nga buzz. am na ci. <laughs> waaw. Mhm. dañuy xool ñaata conférence nga conférence. Mhm. baa ñëpp daan la woo baa ñëpp daan lay déglu waa foofu ana yàlla ji. ustaas bi nag mën na ko bañ a xam. Mhm. du ko xam nag ci gàttal. dëgg la nag. woo ku ñëpp di déglu am na solo ndax dana jàllee message. waaye na yàlla rekk a tax. xaw ma dégg nga wax jéem bu baax <laughs> na yàlla rek tax. Mm-hmm. ba noppi te bu yàlla rek a taxee. Mm-hmm. une semaine waru ci am benn alxamis muy guddik aljuma ci benn temps rek ñu leen koy jox. Mm-hmm. xoolal sëñ Xaadi li muy wax ni maami sot wallaahi ndeysaan hmm. waaye heure bi muy jàll. ñu bari ñu ngi koy nelaw. te billaahi man dama koy déglu ba tiit sama bopp. ci yar gi ci may gi ci leneen leneen xoolal oustaz Alioune Sall ni muy dégg jamono ni muy ko waa jamono wallaahi moo tàmbali fi ni mi ñu jot moo tax seetaa la mbir yi aajowul sax njàng mu sore <laughs> yow gëmal yàlla rek nit ñi ànd ak yow gëmanteeg yow yàlla ndax si sa ngëm-ngëm googu lan lay fekk te yow gëmoo ludul yàlla mm-hmm. <laughs> waaye nit ki nga fekk muy naanu sàngara mhm. ngay wax ba mu bàyyi sàngara te àddiisoo ko aayewoo ko pour lan ni lay dindi ci lool naan la sa njàng fan la tolloog sa diplôme lan la gis nga diplôme yu bare jikko ju rafet a ko wax moo ko ëpp solo mhm. gis nga diplôme yu bare fexe ba déggoog jaami yàlla yee ko ëpp solo mhm. gis nga diplôme yu bare fexe ba déggoog ak nit ñi xam nga léeg-léeg damay déggu nit ku saf xorom di ko muy Iran ni ne euh, man euh, borom e borom antracise mi laay waxal am na nu mu koy waxee mm-hmm. mooy buy jàngale mm-hmm. comme noonu muy waxee pourtant lu am primaire yi lay waxal waxul ak waa seconde yi <laughs> ok xam nga loolu mooy mm-hmm. jàngale rek ci gàttal mooy nit ah? euh, aajowul sax yenn yi ndax am na boroom xam-xam yu jàngi ba ñëw. Mhm. wallahi Cheikh seen téere yi sax ñoo ngi ko ëpp. ndax laajaguñ leen ba léegi. Mhm. lanu jàng tuuti la ñamalaate ndaxte bu nu ca dooroon sax nit ñi dañuy dem ba duñ leen mën a dégg ndax xam-xam ba kawe na. Mhm. rëy na <laughs> moo tax sanga yu mel noonu. lu mel ni. Tayib Socé lu mel ni Iran Ndaw lu mel ni oustaz Pape lu mm-hmm. mel ni eh, eh, eh, oustaz Assane bi muy toog ak mm-hmm. oustaz Assane bi nekk Walf Fadjri mm-hmm. kii xam nga xeet yooyu ah ak ku nu naan Mouhamadou Lamine Darame ak Serigne Dame Ndiaye xam nga damay bañ a fàtte rek waaye bëgg a xamal rek ñi ñun ñu ngi leen ni teewloo waaye temps yi nuy am ci télé yi barewut boo xaymaa. caaxaan gee ëpp doole fuuf. ndax léeg-léeg nga gis nu teg nit koo xam ni jox nañ ko temps bu doy waar ci mhm. émission mhm. nit ki di reeloo nit ñi walla di def yu ñàkki solo quatre heures de temps te yàlla ne internet yi di toj ni naan fu ne ku nekk nga koy teewlu sëriñ bi su xoolal du nu fa teg nit koo xam ni waroon na wax ci yàlla nee na bi nee mhm. waaye sañoo ci sore ndax da leen fayalul impôt mm-hmm. Mm-hmm. wax rek nga ci man wallaay ndeysaan <laughs> kilifa yi fexe ba mm. sëriñ si yàlla may moyen te dénk leen taalibe yu ne mm-hmm. nu fexe ba ustaas yi amul moyen ci waxukaay nu fexe bay créer ñoom yoo xam ni nag nu bañ ko def seeni moomeel xam nga ubbi sam télé naan bu nu fi tagul samay maam bu nu fi waxul samay bopp. jarul ni fi wax. boobaa lislaam ji du yaatu. yaatu dëgg la de. ci gàttal. waaw day tënku ko waaw ah, wax dëgg yàlla. Mhm. moo tax sëriñ bi. Mhm. du ustaas yi de wax ju néew ji. Mhm. événement ba événement déedéet ustaas yi dañ di leen ni. koor gi lañ leen ni soxla ci télé yi ndax buñ ci tegee fuural kenn du seetaan loolu kese la ya ah. du leneen nag. lépp nag kenn mënu ko wax. macha waaye nag dëgg. borom xel a koy wax. Mm-hmm. borom xel a koy dégg. dégg borom xel a koy nangu. lijjantiwunu ci keneen koo xam ni. Mm-hmm. nangu woo ko dégg ak nangu woo ko nangu ndax intérêt personnel moo ci ne. lii moo ci xew nag. macha allah ustaas duñ ci leen. Mm-hmm. dañuy waxe fu ne ñoom ndeysaan. saa allah waaw seen événement la. mooy yàllaa leen ni fay. xanaa xamoo seen conférence yooyu. am na ñoo say tuub léeg-léeg ma dégg ni naan wutukaay xaalis lañ ko def mhm. <laughs> naa koy dégg nag mhm. non waaw kon pour lan musicien bi woy at mi lépp ba mu jeex mhm. lu tax duutu nu ko baaraam ni ko wutukaay xaalis yow kiy wax yàlla nee na yonent bi nee na ba weeru koor jot nga ni su baasee day baare mbedd mi <laughs> su dee su ko nit ñi dégloo événement la alal la koy wutee kon loolu soxor la. <laughs> soxor la suuf ah non loolu la rek. ostaas ba nag dëgg la ci moom ak du dëgg ci moom ak jub na moom daal lenn xamal naa la ko. Hmm. yàlla dénk na. Hmm. saay-saay alal ju dul jeex hmm. yàlla dénk na saay-saay xam-xam ba dul jeex kon la nit leneen la mu doon yow ma koy lëñ sax bu yàggee danga koy doon ci gàttal <laughs> macha allah Cheikh Moustapha mu doon lu am solo wax dëgg yàlla eh, te te te te ñoo ngi ciy jaarale si jaarale suñu kaddu jaarale ko ci sa kaddu gi macha allah rabbi soññu ci ni nga waxee léegi. Mhm. kilifa diine yi kilifa aada yi borom barke yi nga mhm. xamante ni diine ñor na leen. Ah, nañu jóg fexe. ay jumtukaay yoo xamante ni tey jii. oustaz sax dootul taxawaalu ci àll ci mbedd mi ndax. Ah. rawatina ñu leen di xaar weeru koor ba weeru koor. la yàlla loo xam ne lu am solo macha allah. Ah. yàlla dégg kaddu gi te te te nangul ñu ko ci dara yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam bi. Mm-hmm. bokk na ci léegi ci sa biir wax. Mm-hmm. nga tudd musicien. Mm-hmm. est-ce que tey jii yell na ab sëriñ. bu mel ni tey jii sëñ Moustapha. war a dem ci soirée. Waly Seck wala soirée Youssou Ndour. Mhm. ñu naan deete waaye mu ni soirée bi ku ko fecc ba mu jeex. Mhm. boo dee dem àjjana. Mhm. ndax yàlla na. maa ngi ziar oustaz Babacar Ndiaye. ndeysaan. xam-xam bu rafet boobu. macha allah borom xol bu sell boobu. sunu xarit la lool macha ki nga xam ni yàlla cëral na ko. te fu mu fekkee joxe cër. maa ngi koy ziar bu wér. muy dimbali waa cité. bisaab mhm. ak fudul cité bisaab ak waaw ak wëllëreem boobu di baxtaar ma muy àndal xam nañu la may wax tubaarkaal yaa ma ko xam tubaarkaal la kay ngi ziar sunuy wëllëre yépp di baalu àq ci weeru koor gi nu nekk surtout Cheikh Talla mhm. njuumte la gu rëy ci ki wax loolu mhm. jumte gu rëy rëy la sax gu rëy njuumte la goo xam ne taalibe sëriñ saaliw jóge ci daara sëriñ saaliw di waxtaane sëriñ saaliw am ñu la bëgg ngir sëriñ saaliw njuumte la xanaa xamoo ni Waly Seck bu géntoon bu géntoon laa la wax waliyu yàlla ni ko sa soirée ku ci fecc tàbbi aljana billaahi du ko nettali mbindeef du ko wax baa bu ko waxee du ko jëmale kaw gént laa la wax di waliyu yàlla kaamil wax ko ko nag du ko wax ndax xam na boppam xam na fa mu war a tàmbalee xam na fa mu war a yam lenn rekk ma metti doom la doomi jaamur la te heure bu waree dal rekk am lu dalaat ci kawam loo xam ni fitna la man loolu rekk daal moo ma xaw a jaaxal ci doomu jaamur jooju nga xam ni mm-hmm. lii beneen affaire lii moom tooñ gu rëy la sax ci gàttal rek ah waaw tooñ gu rëy la tooñ la fa yàlla mm-hmm. ay jàng sax kenn sañu fa toog nii mm-hmm. ku fa jóge sa yàpp yaram araam na sax kenn sañu ko sax nag ci gàttal rek njott rek ngay am nag yaakaar ci gàttal rek mm. waaw ñaata nitay dem di julli ji est-ce que da ngay taxaw ci buntu jàkk ji ni yow mi génn ci jàkk ji sa yàpp yaram araam na safara da nga ko sañ xalaat njott rek ngay am ak yaakaar waaw dañu yàlla seetaa la mm-hmm. ndëgam ci li fi ñu koy yaakaare sax bu ñu koy wax dañu koy seetaat mm-hmm. <laughs> bu nu koy wax sax dañu koy seetaat mhm. ndax dafa ndawut nga toog ci fu la ñépp di dégg mhm. di la fa dégloo mhm. soppe ne fa noon ne fa suñuy nawle sax ne fa wallahi rëy na yàlla na nu yàlla jéggal sax ci dégg googu yàlla na nu ko yàlla jéggal man daal maa ngi ñaan yàlla yàlla na nu ko yàlla jéggal waaw ndax daal fekki muccoo ci gàttal juumte la nag ndax ki ko doon wax wallahi dama jàpp dafa jum juum gu rëy sax nag waaye yàlla nañ ko yàlla jéggal yellul jaatuwul cëruwul te ku ni woon tegal sa loxo foo ko teg kenn du ko fa teg man de masuma ko gis masuma ko dégg ci àdduna yàlla xam na ko waaw ndaxte daal fu gàcc ëppee hmm. ah foofa wallahi da leen war a ñaanal ñoom yàlla jéggal leen yërëm leen waaye day bu leen gën sànk bu leen gën a sànk mukk waxunu fa nu ne sànk nanu de ndax yërmande yàllaa gi fépp nag mhm. Mhm. waaye nanu bàyyi xel ni <laughs> li baax li mhm. kenn mënul fexe ba mu bon lu bon li mënunu fexe ba mu baax wax yàlla la nag du suñuy wax mhm. ci gàttal wallaahi lazim man seetaan naa vidéo bi mhm. ma déglu ko mhm. dégluwaat ko dégluwaat ko mu mel ni lu ma jële kaw nag ah, dëgg dëgg dëgg ne ba noppi mu tuumaal leen ci nag yéen sëriñ si teg ci waa xam nga jumte la rek <laughs> sëriñ bi dama taf ne bakkanam la rek. am na fu nu waxe sax ba nuy waat ci alxuraan waaye déglu ma mu jeex. Mm-hmm. Oh. moo tax daal njuumte la daal. Mm-hmm. man daal fii nu toll njuumte laa ko teg ba fii may toog waaye man daal. Mm-hmm. man yërëmu ma ñuy wax. ci waali waali laa yërëm. ndax li nu koy teg attanu ko. xamewu ma ko nag lu ñaaw mhm. xamewu ko lu bon mas naa toog fii ni la ni mhm. lu baax mën naa ko seede ci moom ci fu mhm. ma fekk mu koy jëf mooy fii ma génn ci sama wetu kër gis gis wax dëgg fa neex yàlla ay nit rang fa ba fees ñu nu day jël ay xéewal di di la jox lu wér la lu mu saxoo di ko def sax nag li loolu tax nit ñi di taataan buntu këram du fa yendu di fa fanaan waaye nag lu nit bare bare mbooloo mhm. bëgg mbooloo moomu toppala baa di la bàyyi xel bu la taree wax lu wax ju rëy mhm. fa yàlla mhm. ay bu la fa dee fekkee nga jombi ay bu la fa tawat fekkee ba tuddoo ba jóg waa ka ngay waxal loolu bu yëgul ni yaa ngi fi foo jëm te bu yëgul ni yaa ngi fi te yàlla yëgul ni yaa ngi fi fan nga jëm nit nag soo nee yoon la nekk mhm. te bëggoo ko yàqal yoonam mhm. dee ko waxal jàmm ndax mooy jàmm mooy sa jàmm moo tax daal mhm. lu mu jéggalu yàlla na ko xeeb ñun ñi ko fekkit lu nu jéggalu yàlla nanu ko xeeb ndax man nañ ci wax sax ba wax ci luñ ci warul wax waaw ndax boo xoolee fi mu toll nii yemu ca loolu ndax nee na sax dem na ba yegg ci ne naan sekk Seck moo dàq seet ñëpp waa xam nga seet moom <laughs> fëgg jaayu Sandaga la <laughs> ku ci ne mën nga ci am morse. ndax loolu may la. <laughs> xam nga man moom seen mm-hmm. loolu ma lay wax noonu. Mm-hmm. moom mi ko wax. Mm-hmm. xëy na waali seetal na ko ci gàttal. <laughs> man manuma ko weddi man mën naa njott sax ni. waali sekk moomu. di doomi coon sekk yal na yàlla yërëm baayam. yal na yàlla yërëm baayam yal na yàlla yërëm baayam yiw rekk laa xam ci baayam mm-hmm. yàlla man na ko may sax lum ma mayul man mm-hmm. hmm. waaye dama ni mm-hmm. ku nekk dafa am statut bu jekk ci yow nga war ci wax lu ne lu la neex te kenn du ni la waroo ci wax am loo xam ne jekkul ci statut ñun ni ciy wax ndax sañu nu ci wax ñun lenoo xam ci nit dana bare sax waaye est-ce maa ko war a wax est-ce que jekk naa ci wax ko du problème mhm. man xaw ma ci moom lenn mhm. lu dul lu rafet lu baax fi mu toll nii mhm. man xam nga lan laay wax euh, doomi coon yooyu lu ma koy wax mooy yàlla na ko yàlla musal ndax xam nga lu tax nit dana daanu la xat daanu la tegloo àttanul ba nga mujjee xat dangay xat waaw yan woo xam ne waaw ndax da nga naan diw lim ma waxal waaw wax ju ji nan la ma ko ni sañe waxal mhm. dafa rëy wax ji ndawut ah, moo tax bu ko mënee woor moom Waly Seck mu jéggalu ko yàlla sax na ko def mhm. man loolu laa koy digal macha ku fiy wax leneen nag mhm. bis day jot du yàgg dara yaa ciy teg sa bët xam ni mun lay wax yàlla nga yàlla nga na nga mbëkk sa bopp ba sa déedéet ji na nga xam ni doo yàlla. ci gàttal. loolu rek laay wax. loolu wér na de moom a allah. voilà loolu rek laay wax. <laughs> macha allah ci a jërëjëf Cheikh Moustapha leeral boobu am na solo kon nag wax dëgg yàlla kon ñu ni ñu jàpp ni juumte la te fas yéene ñu itam wax dëgg yàlla tuubal suñu borom te jéggalu maanaam dégg gi ñu ko dégg sax wala gis gi ñu gis loolu te wax dëgg yàlla ñaanal ko itam sama borom soppi ko tegaat na loo xam ne ni nga ko waxee léegi mm-hmm. ko mm-hmm. ndax koo xam ne da nga ne fàtte ni alalul Serigne Saliou Ngom ba mm-hmm. jaami yàlla yi nga xam ne dañu soppal la ndax Serigne Saliou mm-hmm. ngal bëti ko daanaka di wax wax yoo xamante ni daanaka mm-hmm. tuwaatkat la daal euh, wax dëgg yàlla ñun ñi nga xam ne amuñu baatin amuñu xam-xam sax fi ne jombale nañu yenn wax yi suñu bopp wala wate na jëmm ju mel noonu kon wax dëgg yàlla man nag dem ba léegi maa ngi koy jéem a jot waaye nag munu ma koo jot te oh. musuma koo ñàkk a woo ba jotuma ko ah, man mii ba doon bëgg naa woo manuma ko waaye wax dëgg yàlla ni su ma sañoon woo ko mhm. waaye daal njuumte la rek ci gàttal bu jëree daal bu suba man danaa xëy dem këram man suba danaa xëy dem këram danaa fexe ba jokkoo ak moom ndax wax dëgg yàlla nii ma def ak yow def naa ko ak moom ci ay jotaay mhm. te booba la taxoon ma doon jotaay ak moom mhm. fa mu woote woon ñu fekk si ko wuyu woon ko ci loolu mu yoroon tam xam-xam bu ko suñu borom baaxe woon ñu doon fexe ba xam-xam boobu àdduna teg ci seen bët moo ñu ci jublu woon waaye am na ci loo xam ne bu fekkee dañ la koy dañ koy def boo lëggee dañuy wax ni ñun ñi di wax ak yéen mhm. ñun ñi ay ay ay tapalekat wala yu mel noonu ba tax na fi mu toll ni man dana ma jaral sol sama daal dem ba këram bu soobee yàlla loolu moom danaa ko def ci kàttanu mhm. bokk na ci Cheikh mhm. li nga xamante ni mooy li liñ doon waxtaan keroog tudd nañ ko maanaam jotaay jamono yëpp ñu ngi koy tudd est-ce que tey jii yell na euh, ci ci ci ci ci ci ci ci ci yenn kilifa yi ñuy génn ci réseaux sociaux yi di wax yenn wax yi comme tey liñ doon wax nii surtout nag tey ji fi nga xamante ne tey ji euh, adduna yëpp ñu ngi lay seetaan tey ci YouTube bi Cheikh Moustapha mhm. waaye adduna ngi lay seetaan ci TikTok bi mhm. est-ce que tey jii yël na nit ñi nga xam ne ñi ngi suivre TikTok bi mhm. li ñu gis ci TikTok boobu tey jii par exemple war na tey jii yenn kilifa yi ñu koy def parce que réseaux sociaux yi moom dafa accaparer àdduna wax ak war teetuñ ko waaye est-ce que yell na ci yenn wax yi ñu ko fay génne ndax ñi topp réseaux sociaux yi ngir bëgg cee jàng bëgg cee jaamu yàlla dafa bëri xam nga wax ju jaar yoon dëgg mhm. te yàlla bëgg ko mhm. doo ci fay bor doo ci xaye ko bor wax laa la wax juy mhm. wax ji yàlla bëgg yàlla bëgg waaw mooy wax nit mën na ko wax te du gaaruwaale nit te du tooñ nit te du rafetal nit seetal su dee yow laa am ak yow jafe-jafe du ma wax ak yow ci kaw internet <laughs> déedéet waaw boo safewut <laughs> am na fu may waxe ak yow bu dee wax ji dëgg la ndax kaay xuloole leen ma baa dama mere diw walla naa yàq diw boobaa gëmal ni ba ngay pare am na ku lay yàq ndax marchandise moo gis am na bénéfice mm-hmm. ci gàttal moo tax yorug paaka di gàddu da jam di jam di jam gëmal ni la ngay jam bay daaneel nit it gëmal ni looloo lay daaneel ci gàttal <laughs> dafa am loo xam ni hmm. man day maa ngi koy ñaan yàlla hmm. yàlla na ma ci yàlla musal ci accident wu làmmiñ hmm. jaam bu manqué lanu nag ñun ku matadi lanu wallahi wa rabbul kaaba na nuy juum saa su ne wallahi mën na nuy juum ci jëm man nañu juum ci xol mhm. waaye yàlla nañu yàlla di dimbali ak di nu xettali mhm. man daal sama cër laay wax man mhm. man Moustapha su ma defee naka sudul noonu sax loolu du sama cër ndax xaarewun ma foofu dégloo dégloowunu ma foofu dëgg te it ma it foofu waaye li ëpp solo ci àdduna mooy xaste bi du sunu cër waxante lu ñaaw li du sunu cër mhm. xanaa suturaalante te ñaanalante te wegante te joxante cër mhm. leneen lu nu def defuñu ko kenn yow mi koy def sa bopp yaay toog wax nit ci moom lu ñaaw mhm. wëlbatiku waxaat ci moom leneen kon xoolal la ngay wax mhm. ndax yàlla nag ñépp la fi nekkal te day àtte nag surtout loolu mhm. moo tax loolu seex taala mhm. lu dul daal xettali jaam yi seen xel di dal seen xol di neex seeni wërsëg di yaatu nii am jàmm leneen lu nu dund ak ñoom lu dul loolu tas na nañu seen yaakaar ci gàttal macha allah mu doon lu am solo Cheikh Moustapha ni nga ko waxee bokk na ci tam ba tey damay faral di dégg baatu gëlëmal mu doon baat boo xamante ni waxtaan nañ ci. ak lu mel ni baatu noob. waaye gëlëman. wax nga laaj naa la ko fi bis nga ne ma am na. naka la ñuy gëlëmalee nit. ak ci yan condition lañu war a gëlëmalee nit. ndax gëlëmal nit tam ndax am na njëriñ. gëlëmal nit de soble dana ko def suuf su tàng dana ko def gëlëmal. soble ak suuf su tàng. xam nga soble rawatina soble mbay mi ni mbay ci réew mi. mooy bu xonk bii nga xam ne dafa bëri ndox lool boo nee paccax rek dangay gis ku ci toxoñu. Mhm. gëlëmal gu garaaw a ngi ci nag <laughs> moom soble benn. gëlëmal suuf sunu saafe gerte ba pare dana ko def waaye suuf soo yi dana toj liggéey. Mm, bu ñu saafe gerte ba pare. waaw. <laughs> waaw ci ngàntal waaw am na nit daanu ko gëlëmal ba nangu lépp lu mu yor nit daanu ko gëlëmal ba lu nu ko wax mu def ko jigéen daanu ko gëlëmal ba yegg ci kawam nit daanu ko gëlëmal ba ni ko demal seen kër nga dajale téléphone ya fa nekk yépp a nga indi am na am na ñu koy def nag moo tax nag <laughs> bul ko gis rek ni ko jàbbug loxo bu nee la jàbbug loxo boo moytuwul jàmbat hmm? waaw ñépp setunu te hmm. kuy def lu bon rek setatoo hmm. ci gàttal am na de bu baax nit daanu ko gëlëmal muy dox dëkk ak dëkk bokk na ba léegi nag ak naawtal gëlëmal ak naawtal du benn non non du benn du <laughs> benn bii da ngay roñ roñi ñëw roñ roñi dem naawtal nag neew nu dan ne la ni jarul ngay indi dara demal rek yow demal Italie toog fa vingt ans demal Amérique toog fa vingt ans bul indi dara yow ñun daal sa jëmm ji la ñuy bañ a gis oh. ndax sa appartement baay bi xam na ni yow yaay sa taawu baay yaa ko war a bon waaye bëgguñu pour nga gis ko ba am loo fa ne am na ñoo xam ni ñu nu bokkal dañuy bàyyi ba borom kër gi dee nu jël seenu njaboot dëkk ko ci kër gi fexe bay suul ak di sulli ba ka nga xam ni moo moom cër boobu du fa mas teg tànkam ba na muy wuyjee boromam allahu akbar hmm. moo tax léeg bëgg naa ni waxtaan ci mbokk yu bon hmm. naawtal noonu lay def nit naawtal yaay xëy bàyyi sa njaboot yor sa as saak baa sa mbuus baa sax doo yóbbu dara dem sa yoon xel dem rek waaw dem moo tax ku sa dàll réer boo xoolee xol mënoo ko gis defarul ci sa bopp waaw waaw defarul ci sa bopp ku dut ku teg sa looy jëfandikoo ci sa bopp nga toog ba ci yàgg gisatoo ko aaral sa bopp bu dul lool bopp buy mettee lay rey la ak crise bu dul jeex oh. il faut nit ñi nu wax leen dëgg bi. Mm-hmm. nit ñaa ngi dee ci erreur. Ah, du jeex du xaaj. kalamal ah, nag loolu ci gën a ndaw waaw. <laughs> Ah. est am na fu mu baax moom gëlëmal. ah gëlëmal est am na fu mu baax. am na fu mu baax de waaye safu tawax. <laughs> ndax boobaa homme de tenue yi dañ may mémère <laughs> am na fu mu baax de. ah am na fu mu baax de moom. <laughs> am na foo xam ne foofu naka la fa baaxee ah am na fu mu baax de. wa naka la fa baaxee ah nga yor. Hmm. juróom fukki junni. Hmm. wuti hmm. ko moom kese. nga teggi natt. baa nga leb ko ca banque ba. yor marchandise mu ni tere. ak ah, sëñ Moussa foofu kay baaxatu fa nag ndax nag ah, li ñu tere la. déet taxawal ma wax la. ayca bisimilah. déet taxawal pour ma wax la. déet xettali. li ma laaj nii am na solo de ndax doonatul dañuy tere. xam nga. Mm-hmm. déet ci waxin. Mm-hmm. loola am. Mm-hmm. gàcce nar am. waaw musiba nara am. boo dul jeex. foofu noonu. <laughs> waaw gëlëmal fa homme de jaar yoon. ngeen man sax waxuma de ndax man boo ma ko yëpp samay wax <laughs> foofu noonu am na solo nit. jaamoo fa yàlla te yàlla tax. am na sax. noo xam ni man na ko def te du am waxuma ndax loola. Hmm. xanaa xamoo nit day ñëw sant ma fi ndomb yoo xam ne du ko nangu. Hmm. man booy sàcc di ma defaloo ndomb du ma ko defar <laughs> booy bandi di wër di tasum réew di ma ko defar. ndax responsabilité bi dama ko yor lu leer te damay faatu. Hmm. damay faatu. <laughs> moo tax ni la dañuy wax ci kaadaru xam-xam. ndax xam nga kilay lay aar mhm. ba sa réew mën a ñoŋ mhm. mën a avancer mhm. mën a am jàmm kooku doo wax secret buy wàññi espoir mhm. moo tax duma ma ci sore ci loolu mhm. waaye di ma la bëgg wax ni mhm. xam-xam dépassé na sax étape bii ma lay wax lu leer ngay wax ci gàttal macha allah <laughs> waaw ci gàttal <laughs> am na solo loolu xam naa ne loolu moom danaa ko utal débat spécial parce que loolu faaw ñu yaatal ci ah, ndax nee na am na ñaan gu nan kànku moo tax man dama ragal ay nit ñuy jël nga ndomba rek seere ko fii hmm. man boo ko seere boobu joxee loxo du ko jël ah boo amee ful la ak ko gisee. dégg mu ko seeree nag boo moytul daan na seere <laughs> te gàttal ah la ah, am na ñu koy def làppataake waaye am na am na euh, gàllaaj gu naan kànku. kànku ñaar fukki dërëm lañ koy wecc ko wala ñaar fukki benn. ay nee la garaaw gi ci nekk kenn mënu ko wax. te ñaar fukki dërëm lay. waaw wow kànku googu. <laughs> te te waaw kànku moomee. <laughs> waaw moo tax nag du gàllaaju goo xam ni. ku la neex danga ko koy defaral. dëgg dëgg déedéet amu ci. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw <laughs> gàttal. macha allah <laughs> borom xam-xam bi daanu xam li may wax. soose yi miin nañu loolu. <laughs> soose yi ah, loolu moom danañ ko wutal débat spécial xam naa bu yeewee soo ndax faaw nu waxtaan ci ci ni nga ko bëggee mu gën a mu gën a yaatu macha allah la bi. Mm-hmm. bokk na ci tamit fi ne dañu xool fi ni ñi ñi ñi tëdd guddi di tiit. dafa bëri lool. seytaani rab ak def-def. est-ce que amul léemaay bu léemaay xamante ni dana dana leen mën a muccal guddi gi fi mu wa samaay wa taarix képp ku koy jàng doo doo ci dee guddi deewu gàcc doo ko def guddi samaay wa taarix <coughs> doo jàmb tension <coughs> nan ma baal mm-hmm. doo jàpp tension doo jàmb tension mm-hmm. nee naan dafa xëy rek tànk yi bañ mm-hmm. doo ko jàmbat ci moom wasamaay wa taarix wasamaay waaw doo ko jàmbat benn hmm? soo ko mënul ngay def benn fàllaxi benn naasi benn lixlaas waaye def nag benn lixlaas benn fàllaxi benn naasi ndax naasi toujours mooy watu ci gàttal macha allah man ngay tëdd te tiit bu lay nar jaaxal ba jaaxal nga jàng fàllaxi ak naasi fii tëfli bu ci ne ñetti yoon sa loxo nday joor nga njege naa yoo ko ba balaa muy dañal boppam doo gis a jaaxal ñetti fa ñetti falaxi ñetti naas yi waaw nga njege naa yoo ko kese <laughs> yaa dañ ci xam-xam bu solo daal laax ko rek te ay ay ay buntu la rek ndeysaan mm-hmm. macha allah rabbi mm-hmm. mu doon lu am solo macha allah parce que dafay bëri ñu may ñuy laajte naan fi mu ne daan ko dañ njaboot yi dañu faral di tiit guddeeg yu mel day am day am waaye nag mbiru seytaan yi da koy def da ciy def bu baax sax rab itam da koy def itam waaw bu baax sax bu baax a baax sax. est mm-hmm. macha allah. Mm-hmm. mu doon lu am solo Cheikh Moustapha. Mm-hmm. jërëjëf kon ba tey rek Cheikh Moustapha fi ma bëggoon ñu duggaat ci mooy damay faral di gis sëriñ su bari xaatim day fay bëri luñ koy joxe. ma dégg ci bés sa wax nga wax ci xaatim bu damm. Ah, waaw ak bu tëju li mu mën a lor ci doomu aadama. xaatim bu tëju li mu mën a lor ci doomu aadama. waaye photocopie xaatim ba ma jaaxal. Ah. jël benn xaatim dem def ci 5000 photocopie ñëw teg ku ñëw nga jox ko. waaw am na ci. est ce que xaatim boobu dana marché Cheikh Moustapha te nga ñëw ñu taal ci xaatim waa xam nga am na ñoo xam ni. Mhm. bu nu joxee original jeexal. <laughs> photocopie lan mën a joxe ndax original lañ leen jox. ci gàttal dégguma la de. am na ñoo xam ni bu nu joxee original bi. daan ko wuti waat. ndax benn boobu lañ ci yor. déet moom la ñu yor sax loolay dëgg. <laughs> alors ñaareel bi ci tegu mooy am na ñoo xam ne dañuy wër sëriñ si laaj la ba mu leer moo waral man detaayu detaayu gàllaaj dootuma ko def lu bare man boo ma waxee aajo ji benn yoon ma dégg la duma fi nekkaat am na ñoo xam ni dañuy wër sëriñ si di fa wuti ñaan te duñ leen jox sax lu am solo ndax looloy seen jikko loo leen jox nu jël ko denc naan léeg-léeg sax dañuy toog ba si yàgg naan la benn sëriñ bu tedd moo ma ko joxoon nii la ma ko joxe woon mën naa la ko jox waaye ni ak nii ak naa di la ci gëmloo sax lu ci nekkul xam nanu li ci xew lu bare ñu ngi koy gis benn mi ngi noonu ñaareel bi ci tegu dañuy dem wuti xaatim ndax jàpp naa ci nit man mm-hmm. <laughs> ca Sacré Cœur mm-hmm. jàpp naa ci nit mu koy jox ay nit lu war a faj tànk ni naan boo ko boo ko naayee da ngay tukki si tànk la war noonu am na am na léegi nag am na ci moo waral léeg-léeg ni naan am na si en pagaille photocopie mën na ne ndax mbind la mhm. waaye li ngay photocopie lan la xanaa xamu am na xaatim yoo xam ne ku leen yóbbu ci photocopie dañuy yàq machine ci gàttan am na xaatim yoo xam ne ñi xam photocopie dëgg duñ ko photocopie am na ñu xam loolu nag. mun mm-hmm. ko photocopie. Mm-hmm. du masa mm-hmm. te boo koy forcer mu yàqal la sa machine. <laughs> xaati mu damma nag li muy damma nit moo ëpp li mu koy faj ca gàttal xaati mu damma day damma nit day damma wërsëg day tëj nit waaw am am pagaay est que ah, bokk nag ak xaatim gunu dagg xaatim gunu dagg nag leneen la hmm. am na ñu koy def sax ci guerre hmm? waaw boobu beneen affaire la guerre nit mi ngi lay fat nit mi ngi lay sonal hmm. ne nit ak lay bëgg yóbbu alaaxira ñu nit nàngam ah tubarkaal tubarkaal <laughs> ah. Ah, xaatim moom lu doy la Mhm. du ñëpp ko man ba ci chiffres yi sax léeg dangay da ngay juum waaw da wàccee du tolloo mhm. waaw te loolu it beneen affaire la moo tax du n'importe quel du porte qui mhm. même bu dee am na ñu lay bindal ñuy jëflanteeg yow yow boo dul vérifier rek erreur la waaw Ah, ndaxte lool ne waaye daal xam naa ni moom am na ay photocopie kat moom. non du jeex man am ah, pagaay ñoo xam ne xamuñu ci dara dara dara bu nu ci dajalee nag ba mu feesee yaay nu ñu nee yaay sëriñ lanu eh, moo tax maa ngi ñaan yàlla ni heure bu nu nee sëriñ lanu yàlla na leen yàlla may ndam ca sëriñ soose. ci gàttal. Mm-hmm. waaye daal. ah wut fa nga ko war a wute am na nga ko war a amee sëriñ bi koo ko jox dana ko jariñoo insha allah waaye li gën a garaaw jox ko te xam ni li nga ko jox leer na ni la ni doxut baa lan la ca waxoon ak lan ca wax du benn mhm. li nga am nag <laughs> ah, ah. yal na yàlla doole taxaw askan bi rek wax dëgg yàlla ndax yëf yi moom dem day dem ba benn jamono dootoo xam sax fi ne noo war a def foo war a jëm parce que li xew lépp kenn xamatul lu mu doon mm-hmm. kër ko xamatul lu mu doon mm-hmm. saar bi ñuy wax li laa fi xureesil mm-hmm. danañ ci mën a wax baax na torop day nopp nit ci waaw day hubbi wërsëg day doxal bu baax sax bu baax sax waaw rawatina fanweer ak ñett ya waxaguma sax trois cent di ko def waaw wow baax na de am na waxtu waaw wow baax na torop torop sax waaw <laughs> barkaan da nga ko tënk de fi mu toll nii waaw waaw sa waay day bañ nga tënk ko waaw <laughs> beneen affaire la moom lii laa fi xoolee beneen fi mu toll fi mu toll nii moom gannaaw sans limite dafa xew. waaw moo tax fi mu toll nii moom dañuy bëgg fi ne di faram-fàccee. waaw non non lii laa fi xuraysin beneen affaire la. Mm-hmm. waaw xam naa ni daal li ma la mën a wax. Mm-hmm. mën na noot nit benn. mën na ubbi wërsëg ñaar. foofu laa yem. kon ma dama koy téye. waaw moom kay ñi may dégg xam li may xam euh, xam li may wax daanu xam li may wax <laughs> waaw tubaarkaal. tubaarkaal la bokk na ci ñu may laaj loo ci yow ñu ma lay laaj loo ne ma nun wal xalami. Mhm. waaw nun dafa doy waar ndax yàlla dafa am lu mu ci dëxëñ ñi koy jàng ak ñi koy jàngaleeg ñi ko xam xame ko nu ne. man ci wax waaye mënuñu fexe ba wër ko ba mu jeex ba ñun ñii di wax hmm? waaw kon moom doy na waar leneen mi ngi ci moom nun wal xale waaw waaye boo ca demee ba ca biir hmm. danga fay gis kun fayakun waaye danga fay xamit xayul xayul xëyum xëyum nga ca ayatul kursi nag beneen affaire la waaw <laughs> ah. ah. ndax man ñaan gu ma ko fekk sama xel dafa ci daal de. <laughs> waaw. moo tax nuun lu doy waar la. Mhm. waaw ndax yàlla da cee dëxiñ nag tënk ko lool sax. waaw lu boroom xam-xam màgg màgg. Mhm. lu mu ko xam-xam-xam. wallaahi wëwarul noonu. Mhm. wëru ko. Mhm. dafa ne nii rek. rombal waaw waaye wuru ko. Mhm. waaw loo ca wax am na loo ca waaw mook xaa baa xii ñooyam ay it moo kaaye eh? <laughs> ñooyam <laughs> waaw <laughs> waaw tubaarkaal ah beneen affaire la ah. ah waaw. Mhm. Ah, a ah, tax am na saar wu doy waar wunu naan arahman xalamal quraan xalaxal insaan xalamahul bayaan mm-hmm. eh, saar la boo xam ni bu la adduna rek ñoree demal seeti ko moom adduna daal la taxawoo rek ñoree c'est-à-dire mooy sa adduna jag mm-hmm. ak nga xam adduna mm-hmm. ak bëgg xam li ci adduna ba xam waa adduna demal ci arahman ah, xalamal quraan waaw lu bare lu bare dana lu ko yëngala waaw moo tax fa bi ay àllaay rabbikumaa tukazzibaan jooju pourtant am na lim ju doy waar waaw moo tax a ah. <laughs> ah loolu nag mooy xam-xama ah. waaw moo tax nag sëriñ bi nuun moom ñi koy sax firi loolu lan la ci wax <laughs> yàlla rekk ca xam <laughs> waaw ah, waaye lu doy waar la moom nun waaw hmm. hmm. ah, ay maye naa pii ma la ko waaw ah, ëllëg sax daanu ci gën a yaakaar hmm. li la wax fa bi ay àllaahi junne ca la muy dox ba waaw ba leeralal marajal bahrain waaw tubaarkàlla waaw <laughs> macha allah mu doon lu lu am solo. Mm-hmm. waaye bëgg naa tamit fi mu ne wax dëgg yàlla bala ñoo jeexal suñu jotaay bi. Mm-hmm. Mm, wax dëgg yàlla euh, sans limite ji. Mm-hmm. tey lan nga ñu ci indi laatal ci sans limite ji ndax wax dëgg yàlla euh, keroog cof nañ ci. nga xam loo ñu ci leeralal. waaye tey bëgg naa ndax bëgg naa jotaay bu ne rek. ñu ñu mos ci ndax nag nee naa nee naa nee naa mbir moom bu amee. wax dëgg yàlla faaw nu faaw nu faaw nu xool ba kenn ku ne nu mu mën a def ba jëriñu ci. ndax xam naa ni jëriñ jëriñ doomu aadama yi. képp a tax ngay sonn sonn gi ngay sonn. Mm-hmm. ndax yéen doo toog di recevoir soo ba jant bi so. Mm-hmm. ñëpp dem. nga fanaan ci kurus wala fanaan ci di wuyu whatsapp yi mm. appel yeeg nangam nangam mm. kenn ku ne di wax soxlaam mm. war a xëyaat nekkaat ci mm-hmm. kon loolu njëriñ doomu aadama yee tax mm-hmm. boo xam ñu mayaat ñu tuuti ci sans limite yi mm-hmm. su ko ñu door a ñëw ci li nga xamante ni moom la moom moom nga war a baaxee askan wi rawatina ci showru ramadan gi ñu nekk moo xam ay wérd la moo xam ay salaatu yu ñu war a def la moo xam ay dog yu ñu war a def moo xam lu mu ci mën a doon ngir ñi nga xamante ni mooy soppe yeeg am di jàmm yeeg fans yi nga xam ne ñi ngi lay teewlu saa su dan may laaj lu may fàtte chaque jamono. muy adresse bi Ouest Foire la. Mm-hmm. dëkkuma nag fu dul Ouest Foire. case kaas tout petits. ci bi. wallaahi boo fa yegsee. Mm-hmm. kiy jaay livre yi ngeen ko ci kër Serigne Moustapha mm-hmm. Dieye laa jëm. ndeysaan pour muy leere noonu saa su nit ñu xamee ko noonu. ci gàttal. benn. ñaareel bi si tegu mooy. jigéen ju bëgg ami seex <laughs> loolu de mbir la moom heure boo sëyee sëyug farata ba pare mhm. nga tëdd ci sa ndeyjoor lu toll ci juróom-ñaari minute ba fukki minute mhm. nga wëlbatiku ci sa mooy tëdd lu toll ci juróom-ñaari minute wala fukki ba fukki minute soo paree nga tëdd noonu ñaar balaa ngay sàngoo suuf da ngaa ni seex ndegam neex na yaa yow mi seex ci gàttal waaye soo ko defee ba pare neen alhamdulilahi rabbil alamina ba muy ñetti yoon rek mhm. ci jamono jëm koy def ci gàttal mhm. yaay taamu nag bis bu rafet boo ko def ci gàttal <laughs> torkal loolu loolu de taw feex la moom ñaareel bi tegu mhm. <laughs> <laughs> ñaareel bi tegu kuy bëgg di am doomi leer bu sëy ak sa njaboot sa soxna di taaluk làmp gënut eh. nan koy maytu te di ko bàyyi suñu sa bu doy waar waaw ku bëgg doom juy ami leer mm-hmm. doom ju doy waar mm-hmm. doom ju ñuy déglu mm-hmm. doom ju yaakaar dul tas doom joo xam ni lu mu dem wuti ko fexeel ba bul di def loolu bi ngay def gisoo ko de waaye moom ma ca sosoo ñëpp a koy gis. Mm-hmm. <laughs> te ñëpp a koy xam. allahu akbar. Mm-hmm. waaye bu jigéen ñi di yàq bu nu yàqal seeni doom yi. Mm-hmm. mooy bu nuy merloo seeni borom kër bu nuy yàq seenu liggéey it ndax ñoom ñoo yor seen bac police yi seen doom yi war a am. <laughs> nu bàyyi xel loolu ci gàttal bu dee ñu ngi def loolu man Moustapha maa la ko danga am doom ju doy waar jarul jox amp jarul jox làmp fu mu taxaw làmp ba fekk ko fa ampul ba fekk ko te dañ koy niital sax du mooy niital boppam ci gàttal ci xam may naa leen boobu mhm. Mhm. beneen bi si tegu seextaa la fi may tëjee <laughs> mooy nit ku manti doon ci àdduna dëggam bëgg nga luy wuti di ko am hmm. maytul toog ci dàll <laughs> ay toogi dàll dee ko moytu ak mi dàll di ko sànni doo jug ci naqari xol oh. jël dàll rekk xëpp doo jug ci naqaru xol doo jug ci biir buy metti doo jug ci bopp buy metti jël daal rek sànni xëpp am na ñu koy def nag ay baax <laughs> ci gàttal ci gàttal kuy defit heure booy nàmpal sa doom nga ni bismillah laa xawla wala quwwata illa billah mm-hmm. doo am cancer te sa doom bu la géexee du la wàññi dara ndax gis naa ñu seen doom geex niy opéré gis naa ñu seen doom geex nu tawati gis naa ñu seen doom geex donja ne fa ba mu indi leen yeneen mbir ndax geex gi mën na rax leneen maye naa lool <laughs> waaw tubarkalla tubarkalla kon nag euh, sans limite ñëwaat na tey foofu <laughs> xanaa sant rek tey gërëm tey ñaan sama dool dolli taxaw bu baax a baax a baax macha allah ndax ni nga waxee léegi nii soññ soññ nga àdduna ndax ñi ñi bëgg ay seex ci soxna yi bëri nañu waaye yemoo ca nga indiwaat ki nga xamante ne bu bëggee bant bu mu am mu doon koo xam ne ku ñu niit lay doon ku ñuy déglu lay doon surtout ndax defe naa ni ku ku ku borom kër bu ne bëgg nga loolu yàlla xaj yàlla ku ne bëgg nga loolu mm-hmm. kon loolu tam defe naa ni taw feex taw feex doy waar loolu muy kuy ut ak wér. Mhm. tey nàmpal. surtout macha allah yal na yàlla xeeb dool yi yal na yàlla gën a dëgëral taxawaay bi yal na yàlla sàmm yal yàlla aar kaddu yu mujj yi kon lan lay doon ci jotaayu tey bi ci biir am Amsar TV la télé solution bi nga xamante ne nee na àdduna wërngal këpp mhm. moo ko tax a jóg macha allah rabbi xanaa ñaanal télé bi mhm. sama borom dolli ci barke defal nu ci sutura allahumma amin defal nu ci taxaw yàlla gën leen kàttanal gën leen dooleel di ñaan ñi niy teewlu it gën a wér yow miy wax ci sëñ Moustapha lu baax mhm. yàlla na nga gën a wér yow miy wax ci sëñ Moustapha lu bon yàlla na nga gën a wér waaw <laughs> ah, man loolu rek laay ñaan ñëpp di waxit ni sëriñ bi mhm. li nu fi wax lépp nag mhm. sunu digganteeg yàlla nu ci njëkk yéeg waaye bu dee àq dox na ci sunu digganteeg doomi aadama bu nu mën ci waxal mhm. nang nu baal àq jubluwuñ ci lu dul mhm. laayante biir mhm. ci ñi war a wax leneen lu dul loolu ak ñi war a tooñe neneen lu dul noonu tooñ gu nekk nag rëy na waaye tooñuk sa borom moo ci raw te àdduna bum la jey mukk mm-hmm. ba mbirum yàlla xàmmee toog ak mbirum doomi adama mm-hmm. seetaale li may dénkaane tamuy suma gàllaaj mm-hmm. na nuy moytu tooñ nañuy moytu tooñ tey suturaalante. Mhm. yal na yàlla doole sutura. lii rek laay ñaan asalaamaaleykum wa rahmatullah. aleykum salaam wa rahmatullah Cheikh Moustapha Dieye macha allah ci waxtaan wu am solo bi waaye ci xam mu sell wu yiw macha allah rabbi waaye ci baax yi nga xam ne tamit yaa ngi koy baaxee askan wi Sénégal rawatina bokk internet yi nga xamante ne ñu ngi ñuy suivre à travers. Mhm. as as euh, euh, Amsa TV wax dëgg yàlla mbégte moo ñu jàpp. ndax mhm. euh, wax dëgg yàlla liñ fiy dégg lépp. saa su ne bu ñu génnee. da man bu ma demee euh, wóor na sabab bi sama waa kër dañ ma naan. Mhm. baat bi may dégg ci TikTok bi. Mhm. dafa ñëw ak sa baat. Mhm. man leen alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax. ndax sama baat bi moom ñu ne man leen benn baat la xëy na suñu borom tag te ni mu ko tëggee. du soppi ko du du du du wute. kon loolay sant yàlla bu baax baax waaye ñaan na la yow suñu borom taxawu la. sàmm la aar la. guddal saw fan. yëggali mboolem yéen yi nga xamante ne naalal nga ko askan wi. waaye itam sant bu baax a baax mboolem internet yi nga xamante ne ñu ngi ñu teewlu saa su ne Mm. rawatina ñiy topp tele bi nga xamante ni mooy Amsa mm. TV la télé solution mm. di leen wax ni li ñu tax a jóg mooy lii solution heure bu ñu toggee ci tele bi heure bu ñu defee jotaay waxtaan bu ngeen fi gis bu ngeen ko teewloo ba mu jeex itam solution kese ngeen ciy jële goo xamante ne gu mucc ayib lay doon te day doon loo xamante ni tam ni ma ko tàmbalee woon rek uqa lay doon dëgg lay doon goo xamante ni ki koy wax jàng na ko maîtriser na ko xam na li muy wax waaye itam xol ba koy joxe ba koy wax itam yërmande kese la ci lal moo tax mu di ko baaxee askan wi kon mm-hmm. ñu ngi leen di sant ñoom it di leen gërëm di leen ñaanal bu baax a baax kenn ku ci nekk fa mu nekk lay bëggam ak mébétam ak yéeneem suñu borom mi dul jeexal dara am lépp sañ lépp mën lépp yal na yàlla jàppandalal ko lépp waaye sant itam bu baax a baax mbooleem équipe technique bi hmm. waaye mbooleem équipe bi nga xamante mooy daara ji nga hmm. benn adresse la amul ñaar amul ñett amul ñeent hmm. case des tout petits bu Ouest Foire ah, numéro téléphone yi mooy yi affiché ci biir écran bi nga xamante ni moo ci ah, suufu écran bi la assistant yi ngeen jot wala assistante léegi nag ngeen mën a jot Cheikh Moustapha wala lu ngeen ci bëgg itam ngeen ko wàccalee ay message vocal mm. bu ko xoolee itam dana leen mën a tontu kon defe naa ni ñiy wut ñiy wër naan Moustapha lañ tudd ak mm. Moustapha Dieye lañ dëkk ak mm. te wala ñi ngi dëkk euh, euh, Grand Médine nag ña nga dëkk Mixtac ña nga dëkk feneen ak feneen dëgg ay kàccikat lañu ay defkatu lu bon lañu Cheikh Moustapha Dieye mii ngeen jàkkaarloo case des tout petits bu Ouest Foire fi la dëkk ci barkeb say xi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi barkeb sayxi fàddilu mi buur ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi barkeb sayxi fàddilu mi buur ay maqaama yàllaaw